ànd ñoom ñoom même front bi aussi àndul si loolu am na loo xamante ne métti nañu donc nañu ànd ak dal bàyyi toj yi bàyyi xeer yi nit mën nga procéder d'une autre façon te gëm le président Macky Sall a entendu sa jeunesse le président Macky Sall a entendu les sénégalaises et sénégalaises na moytuñu ko wër parce que xelaluñ ko dëgg bëggaluñ ko jàmm parce que demee si su amee kenn kuy payer les pots cassés le président de la lu xew si réew mi ku su waxul complice nga acteur et complice nga et nous n'accepterons jamais buñ fi nekkul seen problème la ñun lu ñu ñor mooy Sénégal moo ñu ñor parce que au-delà de toute considération politique nous sommes des Sénégalais nous sommes des Sénégalais donc tey dëkk bi tàkk gënaluñu arrangé wuñu donc j'appelle à la stabilité que na ndaw ñuy arrêté na ndaw ñi ànd ak dal tàlloo ñu kenn laqaloo ñu kenn dofloo kenn jëf ju ñaaw